bokki jullit yi bokki taalibe yi waa kër sëriñ Touba xaadimu rasul waa kër seex Mouhamadou Lamine Bara Mbacke ibnu sëriñ Touba xaadimu rasul waa waa kër Maxa Kuli Biram Gang Jeng bokki jullit yi dafa am ay kàddu seere ak nettali dunduk sëriñ Mouhamadou Diarra Gueye bokkoon ci jëwriñ yi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ibnu Sëriñ Touba Xaadim Rasul lii nuy wax nag li ci ëpp noo ngi ko jële ci njabootuk sëriñ Abdou Khadir Gueye moom sëriñ Mouhamadou Diarra li ci des noo ngi ci njabootuk sëriñ Abdou Khadir Diang moom maxa bokki jullit yi Cheikh Mouhamadou Diarra Gueye mi ngi gane jamono ci dëkk bu ñuy wax kër Mamour Gueye nekk ca commune bu Ñomre ca arrondissement Mbijeen ci région de Louga way juróom tudd Serigne Ibrahima Gueye doonoon ñu sell ñu daan jàng alxuraan te di ko jàngale Cheikh Mouhamadou Diarra Gueye mii nag li waral mu ñëw fii ci xawlu ndigal lu bàyyi ko woon ci Cheikh Mouhamadou Lamine moom Serigne Touba Khadim Rasoul dafa am kenn ci kàngam yi dëkke woon kajoor te dëkk foofu ci xawlu ñu koy wax maxa kuli biram jeng bokkoon ci kàngam yi daan ànd ak Lat Joor Latiir di xeex xeex yu bari daan ànd ak buur bu ñuy wax itam sàmbalaw be di xeex xeex yu bari ba sun boroom dogal ñoo ñële ñépp faatu ñu dem ba xeex yooyale yépp jeex tubaab bi dikk ci réew mi arrêté mboolem xeex yooyu ak noteel yooyu taxawal fi nguur goo xam ne ay canton moo koy doxal jamono yooyu la suñ boroom dogal maxam mii bokk ci ña nga xam ne sunu boroom may na leen tawféex yi fekke lu njëkk loolee waaye fekke lu mujj lii yenn kàngam yi dem ci tubaab bi ngir bëgg a nekk ay chef de canton waaye maxa moom xool boppam xool réew mi xool lislaam daldi wax ne man daal fas naa yéene duutuma toppati benn buur bu dul yàlla sama borom ci noonu la dal di tuub ah, ma nga jaarale ak tuubam ci maam Thierno Ibrahima Fati di rakki sëriñ Touba Xaadima Rasul jooju nga xam ne sëriñ Touba seere ne mës sa man ci ndawam ba ci magam te mooy sama përëgum day joor ci maam Thierno moom la maxa kuli biram gang tuube daal di dugg ci diine lislaam fas yéene sàmmonte ak diine ak uk taalibe waaye maxa waxoon na maam Thierno ci 1914 ne ko man dey mbakke bu ma sañoon danga ma indil fii ci xawlu koo xam ne dana jàngal li des ci sama njaboot gi maanaam sama caat yi xam naa ne duma fekk seen njariñ waaye su ma faatoo seenu ñaan di ma fekk ci bàmmeel bu ma sañoon da nga ma ci dimbali loolu maxa wax na ko maam na Thierno 1914 1915 Serigne Bara Mbacké moom Serigne Touba Khadim Rasoul ñëwaat ca dëkk boobee di xawlu maxa kuli biram gang dellu waxaat Serigne baara lam waxoon maam na ne ko maa ngi lay yëbbante ca sama Serigne ba sa way jur wa boo demee nee ko na fi yabal ko jangal njabot gi ak sama chat yi buma fekke wul sen jarignit senu ñaan di fekk ci ba sax lola yit Cheikh Mamadou Lamine ci na ba 1916 Cheikh Mamadou Lamine dellu dikkaat benen dekk ca xawlu dal di yonne ci maxa melne ku koy setlu ne ko dama ñew fi ak ngan beggon nga yonne ma ak ndawal maxa dal di jël nak wu mak boole ko ay ndaw yónnee ko Cheikh Mamadou Lamine Baara moom sëñ Touba Xaadimu Rasuul bi ndaw ya accès joxoñ sëñ bi nag woowee ko maxa jox Cheikh Mouhamadou lemin xam ne maxa mii li muy wax lu ko ñor la te dëgg la ci moom mu daal di wax ne bu soobee yàlla danaa fa yóbbu koo xam ne maak moom benn la ñuy doon aw sant rek ka nuy wuutale daal di bind ab leetar jël ndaw jox ko aw fas demal ca dëkk ba ñuy wax kër Mamour Guèye lettre bii nga joxal ma ko Cheikh Mouhamadou Diarra Guèye ne ko na ñëw dama koo soxla ba ndaw la accès ba nuyu Cheikh Mouhamadou Diarra Guèye jël lettre ba jox ko ko fa wax ko ne ko sëñ baaram moo ne na nga wuy si ko mu daal di wéer àll yoo daal di laxas ànd ak ndaw la ñëw fekk si Cheikh Mouhamadou Lamine ci dëkk bii di Mbacke Kajoor ba Cheikh Mouhamadou Diarra géey nuyoo ak sëriñ baara ba noppi mu ne ko ndax xam nga dëkk bu ñuy wax xawlu mu ne tekk di ko déglu ngir mag ña daaw ñu wax déedéet seen kilifa ngir sàmmonteeg ay teggin Cheikh Mouhamadou Lamine ne ko Mouhamadou jaara mu ne ko Mbakke mu ne ko xaw lu dey ab dëkk la bu nekk fii ci Kajoor boo xam ne tund wa daa lëndëm te ma bëgg nga dem leeral ko ba mu leer naññ ni làmp kolma di def booba nag làmp kolma mooy làmp yi gën a leer ci réew mi bu doon tey dañ naan projecteur mu ne ko bu soobee yàlla daal koy dëkk ay loxoom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara daal koy ñaanal Cheikh Mouhamadou Diarra Guèye daal di takk ñëw xawlu daal di nuyoo ak maxa kuli biram gang ba ñu nuyoo ba jàmmante Cheikh Mouhamadou Diarra Guèye ni ko man mii dey la fi Sëriñ Bara yabal ngir ma ànd ak yow ci bokk gi ak ci njaboot gi di yaatal toolub lislaam bi ak liggéeyu Serigne Touba bii muy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma xane ko man day maa ko waxoon ne dama bëgg ku fi ñëw jàngalal ma njaboot gi te jàngalal ma sama caat yi ngir bu ma fekkewul seen njariñ itam seenub ñaan di ma fekk ca barsàq muhammadu jaara ne ko bu sobe yàlla ma xane ko muhammadu jaara dama bëgg ma di la mënal lépp loo mënul nga di ma mënal lépp lu ma mënul Muhammadu jaar ne ko bu sobe yàlla muhammadu jaar ne maxa xam naa ne jafe-jafe yi dana bari waaye ku doxul suñ digganteeg jukkib alquran bi doxoo suñ digganteeg jàkkay sun borom ji doxoo suñ digganteeg jatti ji ñuy liggéey ngi sàmm sun ngor sunu suñu diine lépp luy suñuy jafe-jafe danañu ko muñ te liñ bëgg lépp daanu ko am maxa dal di koy daggal kër daal di koy rëddal jàkka ja daal di daggal daara ja tàmbalee jàng di jàngale di jiite julli juróom maxa it ànd ak moom di ko féete fépp foo xam ne taalibe bu dëggal dana fa féete ab sëriñ mu féete fa Cheikh Mouhamadou Diarra Guèye Cheikh Mouhamadou Diarra ca taxawaay ba ak pëstéef ba ak farlu ba ak njàmbaar ga ak ragal yàlla sax ca loola dakk guddeeg bëccëg subaak ngoon ajjuma ju jot mu wàcce lu ab kaamil ak ñi mu àndal ca jàkka ja ñooy wàcce kaamil ba mu defal leen ay bernde togg ay laax defar ay kafe jox leen ko wàcce fa kaamilub alquran jàng junnit salaatantu najina ñaan jàmm ca xurwa ak tund wa ñaan yàlla itam ak njëggal ca ñoom ñaan itam sunu borom yombalal ko liggéey bi muy liggéey ci dëkk bi te muy ndigalul bàyyi ko ci sëriñ baar ñu dem diir bu néew na ko maxa bëgge woon sunu borom dogal loolee lépp am maxa mi ngi wàcc ab liggéey ci 1918 sëriñ baara wàcc ab liggéey ci 1935 waaye fekk na la mu bëggoon ca sëriñ Mouhamadou Diarra Gueye lépp suñu borom dogal na ko sëriñ Baara sant ko ay cant yu bari wax ne Mouhamadou Diarra dey siyaare ji ko foofee ca xawlu jar na sol dalli weñ di dox ba mu xar sëñ Baara ne Mouhamadou Diarra képp ku ko jam man Baara may nàcc ku ma jam Mouhamadou Diarra Gueye mooy nàcc sëñ Baara wax ne foofee ma dël Mouhamadou Diarra Gueye ñeent fukki kilomètres yu ko wër ku fa faatoo maa yor sa ram mu ëllëg yowmal mu sëñ Mouhamadou Diarra Gueye di dund ca la ànd ko ak maxa ba maxa kuli biram gang wàcc ab liggéey ci 1918 Cheikh Mouhamadou Diarra di wéyal liggéey ba ba wàcc ab liggéey ci 1947 fekk doomam di ñuy wax sëriñ Abdou Khadir Gueye ma nga woon ci ndóodi di jàng alxuraan gannaaw ba mu mokkalee ñu daal di koy indi foofee way juróom nekkoon mu daal di laxas delluwaat kër moo du Bara ngir tër bi yow guddi gi mu fanaanee jaayanteeg sëriñ bi ba noppi fanaan ba asamaan set la ko sëriñ du Bara woo mu ñëw mu ne ko la nga doon sàkku suñu borom may na la ko dellul waatal ci xëwlu wéyal ndigal la sëriñ Bara joxoon sa way jur wa sëriñ Mouhamadou Diarra Guèye fedd li kóllëre ga doxoon ci diggante sëriñ Mouhamadou Diarra Guèye ak jàmbaar joojee nga xam ne moo di max a kuli biram gang sëriñ Abdou Khadir Guèye daal di ñëw xawlu daal di dekkalaat taalub jàngu ba daal di yaatalaat kër ga daal di ànd googee daal di tabax jàkka ja daal di yeesalaat kër ga feddali kóllëre ga ànd ak ñoom ci liggéey boobee fépp fu sëñ Mouhamadou Diarra Gueye tegoon tànkam sëñ Abdou Khadir Gueye teg na fa tànkam ba dolli ca loo xam ne lii yéene sëñ Mouhamadou Diarra Gueye la woon waaye eggu ca fépp foo xam ne maxa tegoon na fa tànkam sëñ Abdou Khadir Dieng teg fa ab tànkam ba àgg ci yoo xam ne fii yéene maxa la woon waaye mosu ca woon a àgg ñoom ñaar ñuy dund ci dundin wu ni mel ki yore diine ji kii di doxal ci wàllu àdduna gi ñu ànd ñoom ñaar di doxal loola di sàmm seen ngor di sàmm seen diine di sàmm seenu taalibe ba sun borom dogal ñu tabax jàkka ja daaree alxuraan jooju ñu rëdd ko defar kër ga taalibe yépp di soca ñoom ñu ànd ak ñoom di jaamu yàlla tënku ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bay mujj bi sëriñ Mouhamadou Baara wàccee ab liggéey sëriñ Abdou Khadir Gueye dem yeesal ca sëriñ Abdoul Aziz ba mu yeesloo sëriñ Abdoul Aziz daal di koy jox ndigal ni ko sa yu màggalug Mbàkke Kajoor day ñew di bisub gané jamono Cheikh Mouhamadou Lamine bara dama ci soxla ak ndawal sas la ci ay gënal xam ngeen ne ndabi teranga yi mom fokk na ne buñu doon jongante gënal jël jogget wi seigne Abdou Khadir gay tambali ca sobu ci lolo and ak wa xawlu diko yaral ay gënal bu magal gi dee jup ñu wër dekk yi wër xawlu wër tundu wa diko seuf ci ay saret diko seuf ci ay auto ba diko seuf ci ay camion diko yit Abdou Aziz loolu lépp mu ànd koog njabootuk max ak kuli biram jang moom nga xam ne moo jaayante woon ak moom talam lam jaayante woon moom ba mu wéy itam njaboot ga dañ koo saxal te suqaliwaat ko ba fépp foo xam ne fii ku bokk ci sëñ Mouhamadou Diarra Gueye taxaw na fa bu geesoo dana gis ku bokk ci maxa taxaw ñoom ñaar ñëpp ñu seq kóllëre googu nga xam ne ma nga amoon ci seen ñaari wayjur yu baax yooyee sëñ Abdou Khadir Gueye di def noonu ba sunu borom dogal sëriñ Abdoul Aziz wàcc ab liggéey Cheikh wuutu sëriñ Abdul Asis di sëriñ Baara ba mu demee yeesu ba noppi mu ne ko Abdou Khadir mu ne ko Mbàkke mu ne ko ganaar yooyu nga daan wut ko indi ci màggalu sëriñ Baara gii dama bëggoon nga di ci dolli am matt ndax dañu yitte woo matt ci màggal gi sëriñ Abdou Khadir ñëw di yar ay ganaar di taxan di ca boole ànd koog waa xawlu ànd koog njabootu kuli gi ànd koog mboolem tund wër xawlu yépp di sarse ganaar ya ci ay kabiyon di chargé mat sama ci ay camion di ko yët Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké bokk na itam ci jaar-jaar yi nga xam ne xew na fa mooy siyaar bu mag boo xam ne mas naa am ci dëkk ba te sëriñ Abdou Lahad moo ko santaane woon ci 1971 ngir kenn ci magu kajoor ñi la yàlla baaxe woon mu gis xawlu gis dëkk ba gis barab ba waxtaan ci sëriñ Abdou Lahad mu woote ca siyaar bu mag boo xam ne mbooloo mu dul jeex a fa tase woon ñoom ñëpp ñu bokk daje ci dëkk ba keroog mbooloo ma fa ñëw ba nëgëni mbooloo mu ne toll mosu faa ñëw la ko jiitu te ginnaaw bi ñëwaatu fa am na benn bis boo xam ne Seex Sidi Maxtaar Mbàkke daa xaar ba digg nawet sunu borom dogal nawet bi maral lool mu woolu sëñ Abdou Khadir mu ñëw fekk ko kër ngaana mu ne ko ab néeg laa bëgg mu ne ko bu soobee yàlla ba sëñ Abdou Khadir Gueye fanaan see xawlu daal ne man de li ma fas yéene mooy bu asamaan setee ma xeet di sama néeg bii tegg càkkar bi teg ci suuf buddi jën yi boole ñax mi ak jën yi teg ca ëtt ba ne sëñ di Maxtaar Mbàkke moom Seex Mamadou Lamine Baara moom sëñ Touba daa soxla ab néeg tey te mënta yendu lu waaye am na ko ci def waaye ba mu xëyee di waaj ngir def lu mel noonu kenn ku nekk ci ñoom dugg ci sa kër ñii génne sayu ñax ñii génne aw dénd ñii génne yu xat ñii génne aw jën ñii génne fendifeer ñu defar néeg bi ci bis ba mu àgg ñu daal di koy yenu yóbbu dem sappal ko sëñ Sidi Maxtaar ci kër Ngànna keroog sëñ Sidi Maxtaar jëfandikoo na jëfi sëñ Baara jëfandikoo na jëfi sëñ Touba jëfandikoo na jëfi góor yàlla yu mag yi ngir da leen ne day maral wii ngeen xam ne ci ngeen toll ren jii ba su jamono ji toll fii mu toll bu ngeen di ñibbi bala ngeen àgg xawlu ku ngeen taseel nii leen ko lu mu yor tey bañ mu tooy na ko fat ba ñu jógee ngaan na jëm si xawlu xawu ñoo mën a agsi ngir ndox mu bari moo xam ne ñoom ñëpp ci am ndox lañ doon xuus sëñ Sidi Muxtaar Mbàkke moom sëriñ Mouhamadou Lamine moom sëñ Touba Xaadimu Rasuul jaar na ci ak sëriñ Abdou Khadir Gueye sëriñ Abdou Khadir Gueye moomu ak sëriñ Abdou Khadir Jang ànd taxawaay bu rafet boobu mel ni ëlléeri ko gopp sax dakk way deng di liggéeyal seen ñaari wayjur yooyu ci ndigalul sëriñ Touba ci ndigalul maam Thierno ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bi nu accès ba ci 1985 sunu borom dafa dogal ak ah, sëriñ Abdou Khadir Dieng wàcc ab liggéey sëriñ Abdou Khadir Guèye di wéyal liggéey bi ba ci 2012 moom itam sunu borom dogal mu wàcc ab liggéey waaye yéen a ja maxa kuli biram gang amoon yéen a ja sëriñ Mouhamadou Diaré Guèye amoon yéen a ja Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moom sëriñ Touba Khadim Rasoul amoon yéen a ja sëriñ Abdou Khadir Dieng amoon yéen a jooje jëpp. moom la njabootug maxa gii ànd ak njabootug sëñ Abdou Khadir Guèye ci njiitul sëriñ Khadim Guèye ak rakam taxaw ca sax ca dàkk way ca déng ba mën nañoo wax ne fépp fu ñu ko fekkoon lu ñu fa fekkoon saytu nañ ko téye ko ba mu dëgër yokk nañ ca itam loo ne mënu ca a ñàkk ndax jàkka ja ñu rëddoon léegi tabax nañ ko ba mu doon jumaa joo xam ne ju dëppoo ak jamono la xabrub Cheikh Mouhamadou Diarra Guèye boobee itam tabax nañu ko ba mu dëppoo ak jamono yokk nañ ko yeesalaat nañ kër gi fedd li neen kóllëre gi dox ci seen diggante ak njaboot gi tey la daaray alxuraan di gën a riir dongo yee gën a bari tey la jàngalem lislaam a gën a yaatu liggéeyal Sëriñ Tuubaa ba tey la gën a bari addiye ji tey la gën a bari tey la jàppoo gi ak bennoo gi gën a jëm kanam loole nag moo doon doonoon bëggug maxa moo doon doonoon bëggug Cheikh Mamadou a Guèye moo doonoon bëggug Sëriñ Baara Mbàkke moom Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul loolu moo tax nag sëñ xaadim géey noonu way juróom ma defoon di sëñ Abdou Khadir géey di taxani matt ma di ko booleeg ganaar ya di ko yotti sëriñ si di maxtaar tey jii la ñu gën a yokk pastef ba la ñuy yóbbu ci ay ganaar rek ci at mu jot li ñuy yóbbu ci matt moo ëpp la way jur yi daan yóbbu li ñuy yóbbu ci addiye moo ëpp la way jur yi daan yóbbu daara ja tey jii la fa nekk ci mbooloo moo ëpp la fa daan nekk te ña fay jàng di fa mokkale moo ëpp ña fa daan jàng ko mokkale loolu yi nag li ko waral yéenay sëñ Mouhamadou Diarra Guèye la yàlla def ci sëñ Abdou Khadir Guèye dellu boole yéenay sëñ Abdou Khadir Guèye ak yene seigne Mouhamadou Diarra gay def ko ci sëñ Xaadim Gueye te ko la ngom nak nga gën ko sori kaw la ma xa yéene lépp Abdou Khadir jang defal nako ko waye la Abdou Khadir jang yene woon itam njabotam gi defal nako ko ak njabootu musa mbore jang ak mboolem askanu jangen wo ci jëm joju nga xamne moy seigne sëñ Mouhamadou gay ak maxa kuli biram gang moomu nga xamne mo sakku won ngir mu ñëw fa li lu tuuti la ci lu baye ko ci lu bari ci xexo yi nga xamne amna xawlu mu melne nak dañuy dëkkmal bisub magal bo xamne mom lañuy amal fofé ci xawlu bisub màggal googu itam di buñ tam xaritee ba ci suba sa maanaam altine ñaari fan ci weeru octobre 2017 bis boobu dafa dëppoog ñeent fukki guddi yi Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké waaye itam sëriñ Abdou Khadir géey bi mu wàccee ab liggéey juróom-ñetteeli fanam mi ngi tombé ak gane jamonoog Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké muy màggalug Mbacké Kajoor loolu nag misaal la ci la sëriñ baara doon wax ne Mouhamadou Diarra ku ko jàmm ma nàcc ku ma jàmm moom itam day nàcc kon nag seen i mbir nuróo na seen wax dëppoo na mboolem jullit yi ak taalibe yi di leen yëgal màggal googu di leen xamal ne lii lu tuuti la ci lu bàyyeekoo ci lu bari lii ab xaaj la pour dëkk buñ ci war a tudd danañu ko tudd ko bokk ci bokk gi tañ war laa tudd danañu ko tudd képp ku ci mas a def jëf la nga def danañu ko ci boole waaye xat-xati màggal gi ak tolluwaayu demono rekk moo tax ñu defar lu mel nii matul manta mottali ku xamul manta xamle te loolu sun borom dogal nako ci nun xamna ne li tax dongo bu xebu bi di ko def itam xir rek ak fedeli kóol gu ne ci sëñ khadim ak njabot ga moko waral waye nu gën xam fuuf gën nu koo jekku gën noo rafeti wax ëpp nuy teggin ëpp nu xam-xam ma nga ci tund ba ma nga ci dëkk ba ma nga ca bokk ga waaye cofeel rek bu ñu am ci ñun moo tax ñu def loolu lu mel nii noo leen di sant leen gërëm noo ngi ñaanal suñu xaadim Guèye ak rakam noo ngi ñaanal njabootuk Moussa Mbora Diang noo ngi ñaanal njabootuk Abdou Khadir Guèye noo ngi ñaanal njabootuk Abdou Khadir Diang di ñaan yàlla ñoom ñëpp suñu borom defal leen tawféex noo ngi ñaanal itam Cheikh Mouhamadou Diarra Guèye di ñaanal sëñ Abdou Khadir Guèye ak maxam moomu nga xam ne moo leen dalaloon ci dëkk ba sunu boroom yërëm leen te doon leen ay ngërëm ak leer ci barkeb Cheikh du Lamine barkeb Sëñ Touba Xaadim Rasul njabootug maxa xawloo ngoog njabootug Abdou Khadir Dieng xawloo ngoog njabootug Moussa Mboore Dieng xawloo ngoog njabootug Mouhamadou Diarra Guèye xawloo ngoog njabootug Serigne Abdou Khadir Guèye xawloo ngoog Kajoor xawloo ngoog lu baax a ngoog sëriñ Mbacke Dieng njër jëng daane wax ne lu baax du doy fu baax du doy تلو دول داي نم تلو داي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته